gouvernement bi ñaari Macky Sall laa leen benn bi dama ànd ak moom benn bi ma contre Macky Sall président de la république ab liggéeykat la su ma ko waxee nag waa ji na sëñ dañ koo logal ma ne ko ku ma logal ma ma ma sàqami ko wan ko lépp lépp laay sàqami man waaye dëgg nag dee ko waxal nit ki nag ab saisonnière liggéeykat la ku mën a liggéey la fast track liggéey bu kaaw mën na ko bu wóor mën na am xaalis man na ko toppatoo tey mu ngi def lu baax ndax tey ñu bari ci kilifa yi nga xam ne nangu nañoo dem ci àll ba di jàngale yor daara yi bu jiwu jotee dana leen ci dimbale bu engrais jotee dana leen ci dimbale man nag su ci boole matériel bi moom bu soobu yàlla boobu ñëpp dañ ma dégg te kilifa yi war la koy defal nag te ku wa ku ku yóbbu laaj. ku ñuy wax si Cheikh Bara Gueye xam ngeen ko fii laaj leen ko ba xam mooy jëflante kilifa yi ba xam Macky Sall muy jëflante kilifa yi nangoo liggéey te ci àll bii liggéey te wax daara yi day leen jox engrais yi day leen jox jiw yi am na ñu bari yoo xam ne jox leen matériel te ab sëriñ nag lu ab sëriñ nag bi loolu dong li seq ak ab gouvernement bu koy jàppale daa bëgg bu bu taxawee ca kaw jàppale ko ba mu mën a liggéey loolu dong lañ soo ko joxee daal defal deseeru du ko dara loolu nag mi ngi ci def li ko kem kàttanam dëgg dëgg dama leen koy seeral ci kilifa yu bari nag wante am na problème bu ci am boo xam ne bii bu ko yàq la mooy gis nga noonu mu koy defee ay kilifa yu de ci dëkk bi nanguwuñoo liggéey nanguwuñoo jàngale ñooy def ni bu ñu ko joxee kilifa yooyu ci àll bi mu jaar ca kaw wut ay këyit fal sa ay këyit dem buddi ko génne ko lekk ko tëddal fii ci dëkk bi te ay ay kilifa la ñuy yooyu tappale nag moom dana dañ danaa ko topp par benn kilifa yu bari kilifa yu bari jàmbat nañ ma ko fi danaa ko toppatoo bépp kilifa bu ko def danaa la denoo ci àdduna ba nga xam ne yow ab tappalekat bu mag dóob sëriñ doo daal ba mu leer nañ parce que yéen tappale nit ñi nit nit yor daara nekk ci àll bay liggéey ñu di ko dimbalee fa muy liggéeyee nga fe dañ ko waroon liggéey nga jaar ci kaw yow sàcc ko lekk ko tëdd fii naan ab sëriñ la loolu kon ministère bi ko yore na taxawaat baax xoolaat loolu baax génn alal ji ba noppi ñoom war a àgg ñoom àggu ci nit ñee tam nañ leen dimbale ndax juróom-ñaari kilo kemb kat xam ngeen du du jiwu xaalis bi ngeen di génne muy ay ay milliards ngeen xam ne li ci ak li ci ëpp ak siwut ci doomu aadama yi juróom-ñaari kilo kemb xam nga ku ko ñemee jox nit ak ñaari kilo juróomi engrais xam nga ne yow mi sax yow yow yow sax yow sax xam nga ne defoo lu ba ba noppi nag di ko ci topp nag naan joxe naa engrais joxe naa ak yu dugub bëkk démb damaa jënd fii engrais di ko yóbbu ci tool yi bi njurul bi. am ci ko dajeeg ñoom jàpp ko indiwaat ko ba njurul ma wax ko mu ne ma dafa amul kayit nangam ki nangam ma ne ko yéen man ne ko yéen ñàkk jom man mi nga xam ne si bi maa ni maa ngi ñuy dem jëndi sama gerte jënd sama engrais dëkk ci àll bay liggéey ñaar fukki ñaar ñëwuma Ndakaaru maa ngi ci àll bee tëdd lii ma am ngeen da ngeen ko jàpp mburu maa nag bët ko ko nekk du rees bi muy ma ne ko ñi ngeen def nag di wër di jàpp nii ci àll bi ak engrais bi waaye def leen ko sàcc yi ci àll bi ba jàpp leen bu ngeen leen jàppee rek nit ñi ba mbala mu mën a bay kon Macky Sall man bi man liggéeyam wax dëgg yàlla rafetlu naa ko donte nag ba comme neex neel suñu fan dañ koo logal dëgg la man li ma moom mooy jiwu engrais loolu ku ma ko jox nopp naa ci yow ak kenn beneen sëriñ itam boobu moom d'accord naa ci moom liggéey bi am na yoon waaye Macky Macky Sall mi nga xam ne moom leader politique la jiite APR kooku de moom d'accord ma ak moom politique am baaxul politique am moom politique cuune dëgg la. ndax nit ñi niñ ko bëggee woon politique am bii doo nga tax ñu bañ ko ndax injustice dañ koo bañ ci réew mi kenn bëggu te doxin bii muy dox politique am gars yi di ko jàppale doxin la woo xam ne ween doxin gën koo ñaaw buñ nekkee ci kaw na dañuy defe ne nit ñi nekk xamuñ ci suuf waaye nun ñu nekk ci àll ba di kaw kaw di baykat ñun ñooy analyse géopolitique bi fañ nekk ca tool ya ca taara ja laa wax fa la nekk di ko analyse di xam ne xew rawatina daal ñeneen ci def kon nañ xoolaat doxin politique bi dara baaxul nañ xam ne lii ñuy def nii du politique lii du politique lii moo ay tappale dong la lii du dara lii ñuy def nii du dara mën a tekki dara kenn gëmu ko te kenn du ko jàpp kon dañ jëlu saat seen xel politiciens yi nga xam ne ñoom la àndal muy gars ko jàppale tàmbale ci ministères yi gouverneurs yi préfet yi seen taxawaayu partisan bi ñu yor nañ ko bàyyi te taxawal fi réew mi liggéey liggéey bu leer boo liggéey ñu mën a joxe bilan boo xam ne bu baax la yoon yu ñu jaar bu ñu ko continuer te bàyyi politique bii di boo liggéey bu ñuy jébbale bilan danañ jébbale bilan baax waaye yoon politiciens yi nga xam ne ay opposants lañ waaye yow ñoom nga war a gëm wala gouvernement bi nga war a gëm xoolal ñi nga ci xamoon ñëpp kenn ko ci xamoon mu yàgg coow ko wax léegi ba mu gisee dara lu ko jaral rallier na bàyyi fa nit ñi war leen dem feneen nga leen di xool naa leen train bi balaa balaa ñu dugg ci dëkk bi gars yi dañ cëppeelu wër dëkk bi xool leen ba xam gars yi cëppeelu ñoom de ñi ngi dëkk cëppeelu dañuy wër dëkk bi xaar train bi ci kanam benn train bu fël la ñuy yëgal gis nga ñii ñoo bon ñii ñoo bon sëñ bi te bon ci doomu aadama benn politicien boo xam ne war ko wóolu am ñii ñi ci ëpp daal sëñ bi li wér te wóor nit la yoo xam ne bii mu ci dor dara doomu aadama lañ fi nekk waaye yowal xaam dana ñëw de wallahi képp ku jàpp ne maanaam da ngay jàpp ci ka jaar ci kaw ni jàll yowal xaam nga taa tàbbi àjjana nit ñi da seetal te nax nga sa bopp député yii rek waaye fexe leen ba bu leen nu falalaat député yu mel ñii jàlloon député yi jàlloon kat li ma wér te wóor mooy kenn gis ci boppam kenn gis ci boppam parce que ay gars lañ yoo xam ne ay politiciens lañ yooyu dama leen ni woon mën nañoo tas assemblée jë jërëtul assemblée di am jërëtul assemblée di am ñii fi nekk nekkaluñ fi kenn nañ bàyyi nañ bàyyi excuse bi rek mu doxal lu mu doxal baax xoolaat leen seen bopp ñaar fi wéte day mën na maa wax am na ca loi yu bari yoo xam ne leen leen gaw yomal xe am taxam yéen ko tey si si attekat yi jërtoon ngeen di jàng seen njàng muri yi ngeen jàng ba ñu naan ay saas ngeen atte yi ngeen di atte li wér te wóor xam ngeen doomu aadama yi xam ne wéru mën nañ cee bañ a man dara nag bañ a maanaam yi dara nde danañ ci man yi dara moom atte moom bu dëgg ñëpp ay xam ne du dëgg si atte yow dafa maa waxoon ne gis nga lii ma jàng ñeneen jàng ko yow mii xam nga ko dañu bëgg organiser te organiser luñu la ko rek ndax luñ la ci wax nga xam kon lépp lañ xam juge yi delloo si waat seen bopp